ñu koy ñu koy ziar bu baax a baax a baax di ko jox wàccuwaayam di ko sant bu baax a baax ci yaatal bi nga xam ni yaatal na fi EDK ba ñu dugg ci biir dëkk bi ba def fi lii moom suñu sang bu tedd bi sëñ mun taxa yebal na fi doomam muy sëñ Abo moom moo moom lii di sant tam bu baax a baax sëñ Baara Lahat nga xam ni moom ak EDK yàgg na du tey yàgg na lépp loo nga xam ni xewle nañ ko rek boo gestoo di nga gis sëñ Baara Lahat kon moom tam Mbàkke Balla ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax bis bi nag lu tax ñu ñëw Touba Touba lu tax ñu ñëw fii ndax dañu am lu ñu seetlu EDK dafa am lu bees lu ñu naan jolof ci kën boo xoolee dakaar gox yu bare bare bare bare lii ñu def fii am na fa te dañ ko bëgg yaatal ci Sénégal yëpp nga xam ne région boo boo boo dem capitale régionale boo dem ak gox boo dem ci Sénégal dañoo bëgg lu mel nii am fa ndax lu mel ni bi fa amee dina mën a suqali dëkk ba jàppale doomu dëkk ba comme nañ ko defee feneen ak feneen lañu ko lañu ñëwee biir Touba def ko fi te muy lu jaadu nag lool ndax waa Touba dañoo soxla woon lii ndax dafa am ñoo nga xam ni fii la ñuy yónnee ba dakaar Jolof ci Chicken bi di ñëw ilaa Touba yi miin nañ leen trop ci bërëbu Jolof ci Chicken yi tout le temps ñoom dañuy yónnee su ko defee ñu passé seen commande ñu jaar ci benn site Jolof ci Chicken jël fa commande indi Touba léegi nag loolu nag dañ ni dinañ xar suñuy tànk Touba yi dinañ def lépp ba nga xam ni fii nga xam ni mooy Touba dinañ fi indi Jolof ci Chicken su ko defee ñi nga xam dañ doon yónnee dakaar ñuy far yam fii kon loolu nekk na loo nga xam ni sabab bi la li ko ñaareel mooy dañoo bëgg doomu dëkk bi di liggéey ndax fu mel ni lu mel ni Jolof ci kën bu amee ci gox dafa am emploi yoo xam moom lay créer emploi yi muy créer lu mu gàtt gàtt gàtt li mu néew néew néew néew néew dina mat 40 dina mat 40 emploi yoo nga xam ne moom la ñuy créer ci biir ci biir dëkk bi ndax fii fi mu nekk nii fii ñu nekk ci Touba Xayra tey lañu ubbi Jolof ci kën bi mais lu mu gàtt gàtt am na plus de quarante cinq personnes ñoo xam ni ñu fi fiy liggéey ndax quarante yi ay emploi direct lañ ñi si des ay emploi indirect la ñoo nga xam ni dangay am ay vigile techniciens yoo nga xam ne ñooy assurer tout ce qui est sécurité ñoom ñoo ñoom ñooy vigile yi ak les techniciens de surface ñi nga xam ne ñooy nettoyer te ñooñu ci biir koñ bi lañ leen jëlee ñun suñu politique sociale mooy dem ci gox defa lu mel nii ba pare jël doomu dëkk ba ñuy liggéey kon loolu mooy li nga xam ni moom la EDK mébét ànd ceeg Jolof ci kën ñëw fii Touba def ko fi. waa Jolof ci kën Jolof ci kën moom xam nga boo xoolee appellation bi boo demee yeneen i réew lu mel nii am na fa waaye beneen tour lañ ko jox. yooyu yëpp am na si yeneen dëkk yi ay Europe ak yooyu am na yeneen xeet mais ñu ne léegi comme lii ñun ñoo ko moomal suñu bopp. wala ñu koy tuddee beneen tur dañ koy tuddee jolof jolof ci kën nga xam ni ginaar yi ay ginaar la jolof ci kën mooy loo nga xam ni day yëngut ci wàllu ginaar di ko jaay ginaar bu ñu saaf loolu nag ginaar yi nga xam ni moom lañuy defar ci fii lañ koy jële Touba gii ndax waa Touba ñoom ñoo ñuy jaay ginaar yi ñu ñu ñëw ñëw fii préparer ginaar yi di ko jaayat suñu clients yi nga xam ne ñoo nekk Touba kon loolu day créer waat richesse. yokk économie dëkk bi ndax ay doomu dëkk bi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu ginaar wàllu élevage ginaar ñoom ci ñoom la ñuy dem ñoom ñuy jaay ñu ginaar yi su ko defee ñun ñu ñëw préparer ko jox ko clients yi kon daal Jolof ci Chicken mooy loo nga xam ne vraiment euh, neex na sénégalais yi fi mu nekk ni tur la boo nga xam ni dañ ko sénégaliser. déet dañoo fas yéene mooy li ma la wax xam nga fi mu nekk nii tey xeeral lañ tàmbalee fii nii ci Touba déjà ci Touba barab yu bare bare bare bare yoo nga xam ne barabu Jolof Chicken bëgg nañ ko ubbi tey ubbi nañ xayra suba incha allah wala ci ci ci ay fan wala ci ay weer dinañ ubbi daaru Xudóos dinañ ubbi daaru Marnaan dinañ ubbi Gédé dinañ ubbi Janatul Maxwa dinañ ubbi quartier tout yu nekk ci Touba yu si bare bare bare dinañ fa ubbi Jolof Chicken pour nga xam ne Jolof Chicken day gën a jege day gën a jege waa Touba fépp foo xam ni gox la boo xam wala quartier boo nga xam ni waa nekk nañ fa rek dañuy fexe dem foofu su ko defee ñoom suñu génnee rek. jàkkaarloog ci Chicken bi jënd li ñuy jënd wala ñu toog ci cadre bi gis ngeen cadre bi investissement bu am solo lañu fi def parce que ñun du ñu cof dara amul dara lu ñuy cof gis nga climatiseurs yi boo ñëwee salle bi c'est climatisé dañ lay accueillir ñu yóbbu la salle VIP wala ñu yóbbu la ci salle yi nga toog def consommation nit ñi accompagner la ñu ñu accompagner la si say choix conseiller la wax la li fi am yëpp menu yi. su ko defee yow nga jënd toog consommer tranquillement am na sécurité vigile yi moom laa lay wax ñoom ñoo fi nekk amul lenn lenn loo nga xam ni dina fi am loo nga xam ni lu baaxul la ndax ñun dañuy dëppoo comme Touba la ñuy nekk dañuy dëppoo ak li dëkk bi laaj waaw moo tax doo fi gis kenn kuy sol ay yenn tuba yi doo fi gis yenn yoo nga xam ni yoo nga xam ne yu waaye di la wala yoo nga xam ni wax dëgg yàlla ku ko gis dina ah lii kii de warul woon def lii donc ñun loolu nañ tàggatee suñu personnel ba nga xam ni dañuy am yar am teggin ndax dëkk bee ko laaj waaw bien sûr parce que loolu moo tax ñu am benn numéro boo xam moom nañ ko joxe képp koo xam ne am na aajo bëgg na def ay commande quelle que soit la commande nag nu mënti toll bu ñu woote wooyee à temps muy màggal muy xew muy lépp lu mu mën doon dinañ ko too incha allah ba lépp loo xam ne commandé na ko ñu indil ko ko ñi ngi xalaat sax benn service de livraison boo nga xam ni dakaar am na fa fii aussi tam dinañ ko fi def nga xam ne ku commandé au lieu ngay wu di ñëw fii dañ lay fekki fa nga nekk jox la sa livraison kon loolu ngay wax dama la koy dëggalal bu baax baax a baax am na fi te incha allah fan yu néew bu soobee yàlla dina gën a yaatu bu soobee ba képp koo nga xam ni li mu commandé ci ay pièces bu soobee yàlla danañ def loolu saytu li nga ko li mu commandé yëpp ñu def ko ci anam yi mu gën ñu livré ko incha allah loolu moom bu ci kenn am lu ko metti waaw sama kàddu gu mujj xanaa di leen sant rek sant presse bi ndax lii bu fekkee law na fi mu nekk nii ba ñëpp jot si yéen a tax kon yéen tam dañ leen di gërëm di leen sant ci taxawaay bi. di sant bu baax tam sëñ Muntaxa xalifatul am dañ koy sant bu baax a baax a baax ndax amuñu lu suñu xalifa bi mu yebal doomam ci bésu inauguration bi kon moom tam dañ koy sant bu baax sëñ Abo kon sant nañ ko bu baax a baax a baax di sant kilifa dëkk bi yëpp nag di sant kilifa dëkk bi yëpp di sant population bi tamit gis nañ niñ taxawee clients yi boobu ba léegi suba ba léegi ñëpp ngi ñëw di dem di sant waa koñ bi ndax comme ñooy suñuy dëkkandoo tamit dañ leen di sant bu baax a baax waa Xayra kon ñu ngi ñuy ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous